ahlan bikum bennoo bokk yaakaar seen parrainage bi fa géey fa ñàkk xorom xamut benn engouement waxuma ko député yu bennoo bokk yaakaar ya ñoo ko wax Amadou Ba seen candidat l'observateur ne Abdou Mbow kenn ca ñoom moo toj kaase wax dëgg ji ñu ne déetawaay fañ ka caa yokkal na ko bëri na ay ministre yoo xam ne faale wuñ député yu bennoo bokk yaakaar joxuñ leen benn cër loolu fa ñaaw leesi ko yéen kaay ne kàddu yooyu nag ñi ngi ko yëkkati ci bi ñuy jeexal séminaire bi nga xam ne ñoom député benn bokk yaakaar ñoo ko doon def njiitu jëw nii candidat Amadou Ba moo ñëwoon ngir jiite tëjte la waaye wax nañ ko fukki dëgg ak juróom-ñaar ak mboolem lu leen naqari yaaw seetal député yi benn bokk yaakaar yi wax nañ Amadou Ba tamit na ko ñun amuñ xaalis ngir mën a doxal ci parrainage bi te nga wax ak say ministre yi respecté wuñ ñu ñun député yi ka mel ni ku ñàkkee respect nag Amadou Ba du kenn ku ma Moustapha Diop bu diiwaanu Louga yaaw fa ngay xool Amadou Ba bi mu demee diiwaanu Louga Moustapha Diop fa ak moom ci këru kilifa diine neex ko te mu gedd jóg génn ndaje ma dem yoonam direct news yéene kaay moo ñu ko xamal la mu ñu xamal moom enquête yéene kaay mooy ne Karim Wade fi mu ni waa PDS yi ñu ngi waaj bu baax ñibbisam ci réew mi fan yi rek du yàgg ndax seen congrès bi ñu ko war a tabb ko mu nekk seen mbër Karim Wade moo ko war a jiite laa si yéene kaay na ko faale ci yokkal Kalidou Diallo delsiwaat na PDS Sada Ndiaye moom it ñibbisi na <laughs> leer la neen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne ñaar fukki organisation ñoo xam ne faruñ fenn société civile bi fa ñoo ñaawlu li e a wax na lool du dëgg du yoon jalgati dëgg la ndax attekat bi ca Ziguinchor dogalu attem fañ ko war a jëfee ba tax ñoom ñooñu fañ koo ñaawlu keneen ku ñaawlu li ni mel mooy Malick Gakou fa wax na Sonko fañ ko war a jox ay fiche parrainage am waa DG yi li ñu def du dëgg du yoon ma ngi ca yor yor yéene kaay indépendant yéene kaay na société civile bi kay fa gàgganti jubbanti administration bu Sénégal na leen li ngeen di def noonu du seen cër source a yéene kaay ne avocat yi Ousmane li ñuy def ni jalgati yoon la bés bi yéene kaay na société civile bi kay fa ñoo DGE fexe yoon ñu jëfee ko ci réew mi si du quotidien ne wàllu wote yi ni ko gaañe di doxalee nii société civile bi ñoom seen xel fa teey de ba tax ña ngay dànkaafu jëwriñ ji ñu dénk wàllu biir réew mi wala fa jër yéen kaay ne wutum parrainage bii man daal faa seetlu na daal candidat yi fa ñuy naxante seen biir xam na ñoo xam ne fa ñoo wax ne parrainage bi fa jafe lool yombut de yoor yoor yéen kaay moom fa ñoo xamal ne ñi xam ne fañ leen jàpp <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne waa FMI yi li ñu wax ci koom-koom réewum Sénégal naan fa baax di sargal réew mi gis nga seen kàddu yooyu bu dee dëgg la tamit tribune yéen a man fa maa jaaxal ndax bu ñu waxee ne réew mi koom-koom bi fa yokk te tey ji la Sénégalais yi gën a sonn tey la dund gi gën a cher koom-koom gu yokk te aw askan yëguñ ko ban njëriñ la am si du quotidien na ko faala ci yokkal bëri nañu seen xam-xam màcc a a 166 milliards yu war a lebal Sénégal forum civil fa ñuy sàkku ñu leeral ko ndax yëf yi fa lëndëm lan moo tax ñu ñu koy lebal ak fan lañ ko war a dugal <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca naññi ja mooy ne askan wa dëkk Mboro ak Daaru Xuddoos fañ doon ñaxt rajaxee ka taal yëngal seen dëkk ba fa ñoo mer ba futt ca këru liggéeykaay ba ñuy wax ICS jafe-jafe yu du xaddu jeex ya leen société ba jural moo tax fa ñoo mer ba taal lenn ci poste de garde ya nekk ca usine jàpp de wax ko moom jiitara Macky Sall mbootaay réewu Europe yi mooy financement infrastructure ci wàllu Afrique fañ taxaw Soleil yéen a kaay ñu ko xamal la mu ñu xamal moom bés bi yéen a kaay mooy université du Ndakaaru ba nga xam ne fañ koo tëj Maguette Sène njiit la fa mel ni teggu tànkam de info yéen kaay moom fa xëy ci wàllu information waaye ak démocratie ci réewum Sénégal le mandat yéen kaay moom fa xëy di ñu xamal séddale xaalis bi nga xam ne la dimbalee këru taskatu xibaar yi aide la presse coow topp na ci état bi de wal fajir yéen a kaay mel ni ku daan coow mënu cee ñàkk financement ab programme bu am solo dogal yu am solo nag xalifa général des mourides moo ko jël ca dëkk bu sell ba la di Touba yaaw seetal fa tere wàllu football ca dëkk bu sell ba di Touba ñu ne déetewaay fa tere wàllu politique ca dëkk bu sell ba di Touba bés bi yéene kaay na fa caa yokk nag na takk der yi faa bëgg ngeen jàppale bàyyi faal yi ngir nit ñi mën a jëfee ndigal bi ni mel léeg si ko yéene kaay moom fa ñoo xamal na ña nga xam ne fa ñoo rajaxe woon tojate daluwaayu réewum Sénégal ca New York police bu New York ak département d'état ndëgg sërëx bañ leen tegal ma ngi ca biir yéene kaay ba tàggat yaram démb ba Barça fa rëcc donte moo mbuqi ñaari bal ci benn Paris xaw tuut mu ray Milan Man City fa mbuqi Dortmund fa mbuqi Newcastle l'Observateur moom fa xamal mbir mu garaaw te yéeme yaaw seetal xam benn xale bu jigéen patron am fa ko wann loo lor ba pare mu yàq ëmb ba lépp ngir mën a dem tukki France ba mu yàq ëmb ba nag ci lañ ko jàpp yóbbu ko tribunal atte ko lii yéene kaay moom fa ñoo xamal xibaar bu garaaw te sénégalais yëpp war cee bàyyi xel fa xam ay garab médicament yu ñuy jaay ci pharmacie fi mu toll nii garab yooyu bu ko kenn jëndati Sénégal bu ko kenn naan ndax mën naa joxe AVC maanaam ngay dox ba mu yàgg rek nga daanu na xërës faatu ñàkk sa bakkan wala say ren wa doxee fa laagoo te garab yooyu nag ñi nga xam ne fa ñoo yor soj dañ ko daan jënd di ko jëfandikoo waaye fi mu nii interdit ko aaye nañ ko ci réew mi bu ko kenn jaay waxuma laak di ko jënd yéene kaay bi garab yi nag bokk na ca bu ñuy wax Umex ak Actifed ak Dolirim ak yeneen yu mel ni ñoom nga xam ne sojo xurfaan moo taxoon askan wi hmm, a a